SeneInfo International. salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci SeneInfo point net ak International ak suñu différentes plateforme yi ñu ngi amaat mbégte bu baax euh, ñoo kii yéen ci ajuma ji di leen la yor-yoru SeneInfo ñu ci dikkaat euh, ci li gën a fës ci. Euh, xibaar yi rawatina xëtu njëkku yéenekaay yi wante di ci defi jàngat di ci ànd ak kon yéen internet yi ak it suñu wàllum régie ñoom moo Abdel xam naa kon euh, dañuy tàmbali rek ak euh, yéenekaay bu njëkk bi muy enquête moom nag euh, dafa digg ak ñun ci li nga xam ne moom naan les candidats réformistes à la présidentielle mu ne la bal des outsiders outsiders nag maanaam ñooy ñi nekkul favori wante ñu jar a bàyyee xel lañ ñoo ñi nga xam ne kon bu ñu demee daal ci bile élection mën na am ñu indi ak bettange ñëwaat nañ it ci li nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda jàll mi ñu ne nag fi mu nekk nii est-ce que dina soutenir ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba moom sax ñi xam ne njiitu réew mi euh, dalal na ko ñu ànd ci li nga xam ne moom mooy Ligue des champions 2023 2024 nee nekk fi mu nekk nii ñaar ci gaynde yi rek ñooy bokk ci li nga xam ne kon moom mooy euh, Ligue des champions bi muy Nampalys Mendy ak kii di euh, Bouna Sarr. beneen yéenekaay sëñ Mor moom mooy euh, tribune dafa ñëwaat nag euh, ci remaniement bi war a am ci week-end bi maanaam coppite gi ñu war a indi ci li nga xam ne moom mooy euh, gouvernement bi Macky Sall kon war a coppi jëriñ gannaaw bi nga xam ne sax kii di premier ministre dina moom it démissionné ñu ne nag boobule remaniement daal commencé na juri daal yenn yu ñu ciy waxte sax ñëwagul. Euh, wante it euh, li nga xam ne moom mooy mbirum immigration clandestine sëñ Mor mbir mi daal fi mu nekk nii ni mu lee ñaay dafa euh, jéggi dayoo lu tollaat ci 386 migrants yoo xam ne ñu ne Sénégal lañ déparé tegaat nañu leen loxo man mbir moomu jaaxal na ma ndax nit ñi ñu ngi wéy di dee wante terewul à chaque fois rek da ngay gis xale yi kon dañuy gën a jël li nga xam ne moom mooy euh, gaal yi nguurug Sénégal nag loolu war na ci taxaw bu baax a baax bu weesoo nguurug Sénégal sax ak yeneen dëkk-dëkk yi nga xam ne xale yi fa la ñuy jóg di dem ñoom ñu lëkkaloo amal ay politique yoo xam ne dinañ mën a tey xale yi ci seen réew ndax euh, dee yu bëri yi di si am ñu mun koo ñu mun koo wàññi ñëwaat nañ it ci li nga xam ne moom mooy euh, grève bi nga xam ne ñii di travailler des collectivités territoriales yi ñu ne décret nañ lu toll ak beneen juróomi fanu euh, grève mi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéey ci wàllu mairie yeeg euh, conseil départemental ak euh, yi ni mel kon seen grève bu fan la ñu sumbaat sëñ ma beneen yéene kaay source àll ñoom nag ñëw nañ ci li nga xam ne moom mooy la ñu daal le nguur gi jëloon daal décision kon pour dissoudre parti Pastef maanaam neenal ko ba du amati ñu ne nag euh, cour suprême kon waa Pastef saisir nañ li nga xam ne kon moom mooy cour de suprême ngir boobule décision ñu annulé ko maanaam daal Pastef mën a wéyaat euh, di am te sax kon euh, mu permettre la ñu mën a teew kon ci li élection présidentielle bu 2024 beneen yéen a kaay sëñ Mor bu ñu jàllee mooy le quotidien quotidien nag nee nañ fait de rébellion maanaam Abdoulaye Daouda Diallo daal euh, ñàkk ànd ga mu ñàkk àndoon ci liñ tànn Amadou Ba euh, nee nañ nag euh, fi mu nekk nii sax mu nañ jàpp loolu jeex na kon moom rangé wu na derrière daal dina ànd ak Amadou Ba kon nekk ci ginnaawam ngir gunge ko ci lii di élection présidentielle yu deux mille vingt quatre ñëwaat na ñit ci ki nga xam ne wala bokk jàll ci beneen yéenekaay yi muy. l'observateur euh, ñoom nag ñu ngi fësal seen xët wu njëkk ñu ne APR biir APR wala coalition Benno Bokk Yaakaar nag ak euh, li nga xam ne moom mooy xeex yi nga xam ne nar na am seen seen biir ñu ne nag euh, dina ab duel Mamboy Diawo ak Dura bu ñu war a kon xaar fële ca seen fief wante it ki nga xam ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye ak Samba Ndiobène Ka ñoom it ñu jàpp ne kon foofale ca seen ke seen gox kon di Linguère euh, mbir ma euh, benn ku jee dina am ñoom ñaar wante it Abdoulaye Daouda Diallo ak nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Anne ñoom daal jàpp nañ ne kon mbir yi euh, du yomb ci parti APR mu ñu demee ci élection présidentielle yu quatre yi di dikkaat nañ it ci mbirum immigration bi ñu doon wax sànq ak nag lu ëpp moor ñetti téeméeri xale ñu ne nag dañ leen daal ay gaal sax yu bàyyee ko woon Sénégal ba ñu Euh, indiwaat leen kon ne dikaat nañ ci ab waxtaan boo xam ne am nañ ko ak ku ñuy woowee Mame Cheikh Mbaye nga xam ne moom mooy président fédération des associations africaines des îles euh, Canaries wax ak waxtaan ak moom kon ci li nga xam ne moom mooy immigration euh, clandestine bi. beneen yéene kaay moom mooy vox pop ñu fasal seen xët mu njëkk nag waaj bi ñuy waajal gàmmu ñu nag di ñu xamale ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mouhamadul Mahi Alioune. Aliou Cissé mi nga xam ne moom mooy porte parole bu Medina Baye dikkaat na ñett ci li nga xam ne moom mooy euh, biir li nga xam ne daal moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ak nag euh, responsable APR APRIS yaak daal euh, xëccoo yaak ñu ne ay manœuvre ak ay yi ni mel ñun nag ndax Abdoulaye Daouda moom dina rangé woo xam nga que ñu weesu sànq ñoom dañoo fësaloon ne Abdoulaye Daouda Diallo wu na wante ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk Pop ñoom ab laaj la ñu sam laaj lañu sam kon nee nañ ndax Abdoulaye Daouda Diallo dina nangoo kon euh, nekk si ginnaaw ki nga xam ne moom mooy moom mooy Amadou Ba euh, Seydi Gassama it euh, fësal nañ ko répression maanaam manifestation boo amee Sénégal ak nag répression yi def yenn saa sax ñuy gis ay nit da ca te sax ñu naan ay bal lañ leen dóor Seydi Gassama nag nee na ay poursuite dinañ ko amal te nag dinañ ci topp ñëpp état Sénégal sax bàyyiwuñu ko beneen yéenekaay euh, moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy ba léegi l'observateur euh, dafa ñëw ñaari yoon sëñ Mor ko xam naa da ngay jàll ci beneen rek beneen boo xam ne kon dañ ciy jàll beneen bu yéenekaay rek day nekk bés bi le jour ñoom nag ñëwaat nañ ci li nga xam ne moom mooy diggante Mohamed Mohamed Ben Abdallah Dionne ak kii di Ali Nguy njaay xam nga ñoom ñaar ñëpp dañoo bokkoon ci ñi doon wax ne dinañ leen tànnam déet ñu ne nag fi mu nekk nii kon ñoom dañuy def ab front maanaam daal lëkkaloo ngir nag kon euh, mën a jàmmarloog kii di euh, Amadou Ba kon ñoom daal loolu la ñu fësal seenub euh, yéenekaay wante it ñëw nañ ci ki nga xam ne moom mooy Thierno Madani mi nga xam ne kon demoon na seeti ambassadeur bu Maroc ci jamono joo xam ne nag xam nga réew ba dañ doon traversé mbir mu métti métti muy suuf si yëngu safa amoon beneen euh, yéenekaay moom mooy l'évidence quotidien ñoom nag euh, nee nañ euh, pression bi nga xam ne am na maanaam ak it ay waxtaan yu am tax na ba kii di Abdoulaye Daouda Diallo nangu na nekk ci ginnaaw kii di Amadou Ba ànd ak moom ngir nag ñu mën a daal yaakaar ne bu baax ci lii élection présidentielle bi wante nag nee na loolu def na ko nag wante du lu ko neex ñëwaat nañ itam ci Aminata Touré. mi nga xam ne kon fi mu nekk nii mu ngi ca Fuuta mu ngay doxal li nga xam ne kon moom mooy campagne Fuuta nag euh, bi nga xam ne euh, fieefu kii di njiit réew mi la euh, Macky Sall beneen yéenekaay sëñ Mor moom mooy Sud Quotidien Sud Quotidien nag li ñu fës seen xët bu njëkk tey moom mooy Amadou Ba nag ak li koy xaar gannaaw bi ñu ko tabee muy candidat bu Benno Bokk Yaakaar ñu ne nag fi mu nekk nii nag am na lu bëree bëree bëri yoo xam ne kon mu ngi koy xaar te nag jàpp nañ ne kon loolu du yomb ndax déjà biir APR am na ñoo xam ne ànd ñu ca wante it am na yeneeni jafe-jafe maanaam fi mu nekk nii réew mi fi mu toll ci wàllum économie ak yooyu yëpp jafe-jafe yooyu yëpp daal nekk na loo xam ne kon war na ko campagneale ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bii ñu jëm dikkaat nañ it ñoo xam ne ay experts lañ ci football muy doyen Laye Diaw Koumé ak Lamine Mboup di wax nag ana lan moo tax Sénégal amoon ay jafe-jafe ba sax ñàkk match bi nga xam ne moom moo amoon ci diggam ak euh, kii di euh, réewum kon euh, Algérie beneen yéenekaay Dakar Times la ñoom nag dañoo ñëwaat ci ki nga xam ne wala bokk ci li nga xam ne moom mooy CES bi am sa Maroc ñu ne fi mu nekk nii nag kii di buuru Maroc di Mohamed VI amal na ab programme d'urgence maanaam loo xam ne daal ci nu mu gën a gaawee lu amul xaar ñu xool ana naka lañuy ñuy saafara jafe-jafe yu bëri ya fa am gannaaw ba suuf si nga kon euh, ba nit ñu bëri ñooñu euh, faatu foofu waat na ñit ci ñu ne euh, fële daal ca Arabie Saoudite ak nañu fay daal nasaxale li nga xam ne moom mooy àq ak yelleef ci doomu aadama mu ne nag amal nañ am na ay témoignages yoo xam ne amal nañ ko ci sous commission sénatoriale des enquêtes ak it Malick Gakou mi nga xam ne nag ngir waajal élection présidentielle bu 2024 lancé na li ñuy woowee caravane de la victoire beneen yéenekaay euh, Walf Quotidien la ñoom nag dikkaat nañ ci Sadio maane mi ngi ne daal dañuy gis ne moom day faral day faral di énervé ci li nga xam ne ay match de euh, football la euh, ba sax ñu woowee kon saajo le nouveau disjoncteur maanaam ki nga xam ne daal moom day yëngal mbir yi ñëwaat na ñit ci match contre Algérie ak nag comportement yam ci amoon ak yi ni mel dikkaat nañu si li nga xam ne moom mooy mbirum euh, parrainage ak na li ñu woowee course informelle aux signatures mais fi mu nekk nii nag ñëpp daw nañ utali li nga xam ne moom mooy am signature parrainage ya mooy te sax nag euh, nañu ko war a jaaree ak nañu ko war a doxalee euh, doxalee wuñu ko noonu beneen yéen kaay sëñ Mor bu muy doon laas yéenekaay la ñoom nag dañoo dikkaat eh, ci li nga xam ne moom mooy eh, rentrée scolaire eh, bi nga xam ne kon ñu ngi koy waajal wante it ay perturbation yuñ ca ragal maanaam fi mu nekk nii école mu ngi waaj a tijji wante tam ñu ngi jëm ci ay campagne ñu ngi jëm ci parrainage ñu ngi jëm élection présidentielle ñuy xool nag ana naka la ñuy def kon ba mën a waajal loolu ngir nag moytu kon ay perturbation yoo xam ne war na ci am ndax moyte dikkaat nañ ci njiitu réew Macky Sall moom nag dafa am ràññee bu am solo boo xam ne dañ ko ko jox lauréat la bu prix mondial des finances islamiques beneen yéen kaay mooy euh, l'info li ñu doon wax léegi moom daf ko gën a fësal mu ne mbirum parrainage bi campagne électorale ak élection présidentielle bi ñu jëm daal ay menace la ci li nga xam ne moom mooy année scolaire bi ñu jëm maanaam daal euh, comme ni ma ko waxee xam nga mbirum parrainage bi dina jël temps li nga xam ne moom mooy campagne bi élection présidentielle yi ak it euh, du yàgg dara rek kon élection yi am loolu nag euh, am nañu daal njàqare bu baax a baax a baax ci loolu ba tax na kon euh, nañ ca seqi waxtaan ba xool kon ana naka la ñuy wo woo dikkaat nañ te ci Macky Sall ak li nga xam ne moom mooy kon raaya bu am solo boobu mu am wante itam election présidentielle ñu ne fi nekk ni pouvoir ak opposition daal ñu ngay daal waajal boobule scrutin ànd ceeg nag uh, ay laaj yoo xam ne mu ngi samp seen bopp te sax kon amaguñ ci ay tontu beneen yéenekaay sëñ Mor uh, stade lay doon stade nag uh, ñoom nag nee nañ absent yi nga xam ne kon seen ku ñàkk a teew indiloon na Sénégal ay gàllankoor ci match bi al bi ñu Algérie dooroon ñu ne Nampalis Ismaïla ak bulaay kon nag seen ku ñàkk daal indil nañu ay jafe-jafe bu baax a baax. beneen yéen kay yoor yoor la yoor yoor nag ñu dikk ci Maimouna Bousso mi nga xam ne mu ngi bokk ci conférence des leaders bu yeewu askan yi moom nag nee na daal fii ci Sénégal xalaat ñu organiser élection boo xam ne candidat bi gën a ki nga xam ne mooy gën a siiw mooy Ousmane Sonko du ca bokk moom Maimouna Bousso loolu la xam ne wante it ñëwaat nañ ci plateforme chemin de la euh, liberté bi nga xam ne ñii di jeunesse patriotique ak it euh, kon FRAPP ñoom ñoo ko amal daal ab lettre la boo xam ne dañ ko bind jagleel ko président bu UMS muy union des magistrats euh, du Sénégal ngir nag ñu ne wax wax ko ana naka la daal ay liberté euh, ak yi daal niñ koy salfaañee euh, fii ci Sénégal wante ceeb hommage boo xam ne kon kii di journaliste Maimouna fay amal na ko jëmale ci Fatou Kiné Dème mi fi bàyyee ko bu yàggul libération yéenekaay dafa ñëw nag euh, ci restriction yi nga xam ne kon dafa am ci internet muy nag ay mesures yoo xam ne xam nga nguur Sénégal jëloon na ko ci wàllu jëm ci wàllu internet ak réseau sociaux yi mu ne nag état du Sénégal yóbbu nañ ko ci cour de justice bu CEDEAO ndax loolu ñu wax na it ci mbirum Barça wala Barça xale yi jël gaal gi di dem ñu ne nag euh, chiffres yi daal lu doy waar la diggante le 4 ak le 14 septembre sëñ Mor ci 2023 bi rek lu toll yoo xam ne jugee nañ ci Sénégal teg nañ leen loxo fële ca fële ca Espagne muy mbir mu doy waar dikkaat nañ it ci mbirum Fadilou Keita bu Pastef ñu ne nag ba subu vendredi bi tey la war a euh, dajeek euh, ki nga xam ne kon moom mooy euh, juge bi ñu xool ana fan la ay mbiram di mujjee ci wàllum yoon. beneen yéenekaay Le Soleil la di yéenekaay national bi moom dafa dikkaat ci pèlerinage. au lieu saint de la chrétienté maanaam suñu mbokku chrétien yi li nga xam ne ñu ngi koy amal fële ca Rome euh, ki nga xam ne nag moom mooy monseigneur Abel Mamba dikkaat na ci joxe nag ab bilangu boobule kon pèlerinage bu euh, Rome wante it euh, leneen lu ñu dikkaat moom mooy prix mondiale di leadership en finance islamique bi nga xam ne njiitu réew mi Macky sal bokk na ca ñañu ko jagleel sëñ Mor kon foofu la ñuy jeexalee tey li nga xam ne moom moo gënoon fës ci xëtu njëkku yéenekaay yi di jaajëfal bu baax mbokk internet yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci seen info point net ak seen info international di leen jox dikk daje ëllëg jàngeen jëf. suba xam nga man man kii. waaw sëñ bi seen info international. day am samedi. day am samedi.